man Magaye laa tudd waaw euh, maa ngi dëkk fii Kër Abdou Ndoye sala ndaje mi moom mooy affaire yi pomme yi nga xam ne yi béy nañu ko ci tool yi ñu surwaasone lu jiw yi président def ci surwaation bi surwaation bu baax mu def ko ci boo pare euh, wallu njaay mi teenu ndax noo fekke ba jaay benn benn doomu pomme te dañu jël alalu buur def ci dañu jël ay milliards lañu jël def ko ci biir tool yi amuñu lu dul tool yi ñoom la ñu yaakaar guddi moom la ñu yaakaar bëccëg te mënuñoo fekk jaay ni gas nañu suñuy pomme de terre ba pare mu ngi ñu denc amuñu ay magasin stockage yuñ ko mën a def ci àll bi rek lañ ko jël ñàkk dépp ko ci daal di ko fay béy loola nag loola moo nekk li nga xam ne lii moom moo nu nakkari te mënuñ ci dara. te pomme njàkku njaay mi du ren kese lii moo ko def ay at. parce que dañu doon def bu demee ba nu ñoral nun waa mbaan dañuy baare seeni pombiteer ñoom ñii am ay magasin nun ñu jaay ba pare ñoom ñu sog a commencé jaay ren nag loolu amul daaw commencé woon na am mais ren loolu amul waa mbaan ñu ngi jël pombiteer bi dikk ko dugal ci biir réew mi ba nun ñii nga xam ne ñun ñooy Sénégal yi béy pombiteer yi fii ñoo jaay te ñooñu ay sapone lañu ñu dëkk sapon ñoom ñoo fi ñëw béy fi evertis ay tool yoo xam ne yii bari nañu bëri waay boo xam ne bii nun mënuñoo jaay sunu wëriyati bii nga xam ne yii moom la ñu am jéem nañu koo jaay mënuñu koo jaay dañuy pré euh, interpellé de président république di ko xamal ne nun amuñu lu dul moom moom moo nu mën a jàppale bu nu jàppalee nu dem bu nu jàppalewul du nu dem fenn te nun yaakaaru nu fenn du dul mbéy sàccuñu fenuñu defuñu dara léggéey la ñu def liggéey bii ñu def nag moom moo nu mën a jëriñ waaye leneen mënu ñoo jëriñ ministère bi mu jël yóbbu ko ci Tamba mu nekk ministère mbéy mi fii la waroon nekk ci zone du Niayes mu xam jafe-jafe ñaay mu xam jafe-jafe ñaay yi lan la ñuy jànkonteel mu topp nu ci loolu mais dafa def jël ministère bi sànni ko ca Tamba faale wuñu bu nu ko wooyee audience du nangu fan yii yëpp nuñ ko topp pour audience ñu gisee ak moom waxtaan ak moom problème yi pombiteer yi nanguwul loola nag nun ci sunu wàllu bopp ministère bi foluñu ko président république moo ko fol te président république nun noo ko fol béy mën a normal mu normal mënul normal mu wàcce ko na wàcc ministère bi teg fi ministère boo xam ne bii war na nañu mën a jàppale suñu mbéy mi loolu mooy li nga xam ne lii moom moo tak ñuy rawandike tey jii deux mois fi mu ne nii ñoo ngi ko sàng pot jaayuñu ko ëpp na sax deux mois te deux quatre mois presque ñu ngi ko sàng pombiteer yi ñii seen i pombiteer yàqu na ñii seen i pombiteer mu ngi commencé yàqu te nun amun lu dul moom moom la ñu am guddi moom la ñu am bëccëg amuñu leneen lu dul mbéy nun nag tey tey luy suñu saafara mooy pombiteer bi mbaan bi ñu baare ko ñu baare ko complètement benn pombiteeru mbaan bañ a génn ñu béy ni nun nu jaay ba pare parce que amuñu fu nu denc ñoom nag am nañu ay magasin yu ñu denc nun amuñu benn magasin bu ñu denc ci àll bi rek lañ ko jël ràcc ko ci àll bi jël ñàkk sàng ko loolu nag saa gañ saa perte te kenn ku ci nee tey mu ngi leb ay millions ci banque yi te millions yooyu millions yi jàmbur la danga koy fay boo jaayee danga koy fay boo ko jaay ñu dugal boo fayul ñu dugal la ci kaso bi pomme fi mu ne nii actuellement noo ngi daay deux cent vingt cinq deux cent cinquante ñu ngi koy commencé di jaay fi mu nekk nii moom la ñu la ñu la ñuy commencé bëgg a jaay fi mu ne nii mais mënuñu koo jaay mënuñu koo jaay bu defoon li mu war a def normalement war nañu ko mën a jaay trois cent ba trois cent cinq ba cent cinquante moo war nañu ko koo mën a jaay. waaye nguur gi deful li moo li ko war deful dañuy wanteer wanteer bu bon sax même tey kilo cent cinquante man mii ci bascule lay jaay mais jaay naa fi kilo cent cinquante pomme de terre kilo cent cinquante boo lebee millions yi jàmbur nga jaayee ko saa cinquante doo fay boo fayul ci kaso bi la ñu li jëmee loola nag la ñuy wax président directement moom ci wàllu boppam na régler ministère bi ministère bi régler pomme de terre bi mënu ko mu wàcce fi teg fi keneen ku nu mën a régler suñuy suñuy jafe-jafe loolu la ñu bëri na bëri na bëri na mënuñu koo mënu koo kay ay tonnage yu bëree bëree bëri la mënuñu koo xayma. maa ngi tudd Moustapha Ka dëkk fii ci Kerem Ndoye euh, li waral mbir mi nag ki fi njëkk jaar wax na ko mais li si gën a am importance Macky Sall na delluwaat xelam tuuti rek élection présidentielle yi passé fi mu njëkk déggee victoire fii ci Keur Abdou Ndoye la à part diaspora fii moo ko njëkk jox victoire te li tax ñu jox victoire bi mooy dañoo amoon si moom espoir boo xam ne si wàllu mbéy mi la pour mu jàppale béykat yi ñu mën a gis seen bopp ci ci wàllu wàllu wàllu mbéy mi mais loolu amul. parce que mënoo jàppale béykat bi ba mu am euh, li mu mu produire ba mu war a am quantité bu baax pour mu jaay ko nga ñëw di favoriser étranger ci kaw say doomi dëkk. loolu mooy problème mu Sénégal mooy problème mu pomme bi problème bii lañu amoon daaw ba saay-saay bi jaar fi def ñu benn coup boo xam ne sàcc ñu quarante neuf yoo xam. benn baana baana soi-disant xaw ma baana baana xaw ma lan la ñëw fii ndax ñu tëj ci problème bii la fii la lo euh, gis béykat yi jaaxle mu ñëw mu ne leen lebal leen ma parce que yaa ngi yoreel banque boo yorelee banque ba pare war ko fay fayoo ko boo gisee ku lu ne lebal ma ma dem ñëw jox la danga koy jox waa ji ñu jox ko. boo lii ma lay wax nii boo vérifié ci PAMECAS microcrédit nga gis fa ay clients yoo xam ne yoreel nañ leen depuis daaw jeeg ba daaw ba ba ren mënuñu leen fay c'est parce que waa yóbbu na seen xaalis ci problème bu mel nii. waa ji ba léegi jàppaguñ ko gisuñu ko état bi nanguwuñ cee dimbali te problème boobu lii moo ko andi mooy béy ñoral euh, jaaxle amoo loo ko jaayee ci la pomme de terre fanweer dem loo ci mën a jaay ba nga génn fay ay banque fanweer lañuy ñuy jaayee fii ci tool ya pommiteurs yi ñun lii suñu chambre froide mooy ay jël nga wut ñax def ci ko am naaj bi tiim ko naaj bi mu nit sax mënu mënu mënul dëkku naaj bi waxuma nag pom kii pommiteur mais lii problème bi état bi nañu dimbali directeur bi nga xam ne moo yore wàllu ARM ñii régler marché bi heure yii daaw ñu ngi ci ren nag lu tax ñu toog ba heure yi seetaan béykat yi mooy problème bi fan la problème bi nekk ministre te loolu li koy waral mooy ministre bi ñu jël. ministre bi yore wàllu mbéy mi fii la waroon a jógee ci zone de Niayes bi soit Kayar wala Mboro wala nooto wala Fass Boye parce que ñoom ñoo xam réalité terrain bi nga xam ne moom la béykat yi di dund. bi gën a néew di nga am 4 millions 5 millions pour nga mën a béy parce que chaque jour di nga ma ñi gën a néew li ñuy consommer ci wàllu gasoil 9000 ñaari yoon ña ñaata la 18000 di nga lakk 40 litres bidon bu ne 9000 lay jar continuer ko nga calculer ko lu ma 3 mois. ñu si gën a néewle ak engrais urée beeg araw beeg jiw wi ah, ak fumier yi fumier tos lépp nga dem lébi parce que amoo moyen bi état bi ñun liñ ko ñaan mooy nañu dimbali bu ñu produire ñu jaay wutulu ñu xëy parce que li mu mon moom nee na cent mille la mënoon cent la bëggoon par année pour ay emploi ñun soxluwuñu loolu ñun li ñu bëgg mooy nañu dimbali bu ñoree la ñu jaay parce que ñun ñu ngi wutal suñu bopp métier comme mënuñoo wutal métier wutal nañu suñu bopp métier dem si àll bi di béy moom bu neen bu ñu dee bu ñu soxla autosuffisant alimentaire pommière riz soble yëpp ñu si àll bi ñu béy ba pare mënoo jaay mais jarul ñuy wut mbéy jarul ñu naan euh, sénégalais yi nañ leen béy parce que bu fekkee boo béyee mën mënoo jaay ay banque taxawul démb fii la waa PAMECAS yendu vérifier nga dem direction wakaam yi nga xam ne moo yore PAMECAS bu mag ci biir réew mi de vérifier nga laaj leen certain monsieur Djigo fii lañ yendu démb di poursuivre ay nit ci nan leen fay te ñuy yaakaar ci ay pommiteurs jaay war a fay mun ñoo fay pommiteurs yaa ngi ci àll bi weeri koor baa ngi ñëw xamoon nooy def ak sa njaboot. nga bëgg fere weeru koor amoo loo amoo foo jëm amoo foo jëm fu dul ci mbéy mi nga béy ba pare mënoo jaay métti na ñàkk jaay bi pomme de soble xoolal da ngay kaani poivron bii jógee Maroc mille cinq cent lay jar fii ci biir réew mi mille cinq cent kaani bi ñuy béyee fii ñu koy jaayee trois cent prix bi gën a cher quatre loolu ci lan la bokk carotte la même chose ñuy jaayee carotte Maroc baa ngi ñëw lépp ngi ñëw te lépp di ñoree ci réew mi bu ngeen paree na ngeen vérifier fii ci biir marché mi lépp ngi ne gàññ Macky Sall boo gisee béykat yi jëloon seen tànk tubéy xar ko ngir jàppale ko pour mu jàppale leen mais bu mu seetaan béykat yi bu mu seetaan béykat yi nañu favoriser local bi local bi mooy moom mooy moom mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy jox réew mi réussite pour ñu suqali réew mi faw ñu jàppale béykat yi mbéy mi la ñu gën a féete la jennaaw te mbéy mi moo yore réew mi nañ jàppale béykat bi muy béykatu ceeb bi béykatu légume bi yëpp ñoo yem bi ñuy séddale jiw wi bi ñuy séddale jiw wi am na benn kilifa bu ñu interpellé ñu ne ko lu tax ngeen favoriser mbaan ci wàllu jiw wi dane parce que yéen da a war a xaat ba mbaan ji ba mbaan sori ngeen soog a ji mbaan mu ngi waroon a arrêté le 30 mars la 20 mars la waroon a arrêté li euh, parce que dañ ah, waa ARM dañ ne woon mbaam moom mbaan moom moom mar marché bi ba le 20 mars le 20 mars mbaan arrêté wul ba le 30 mars béykat yu ndaw yi petit producteurs yi dugal le premier avril ba le 20 avril mbaan dugalaat promoteur encore ci biir réew mi mais loolu mooy suñu problème loolu moo ñu rey ñun amuñ sax ci bi 20 jours yu yu yu mot directeur bi yore wala ARM ak directeur horticulture ñoom ñoo xaw ma ñoo jàppale mbaan xaw ma lan la sekk ak mbaan. loolu mooy suñ problème lu tax ñuy favoriser mbaan ci kaw béykatu local yi loolu béykat yi loolu mooy suñu problème Macky Sall bu mënee dimbali béykat yi ci pomme de terre rek jiw ak euh, fumier ak engrais ak yooyu na leen mën dimbali ñu jaay.